dama fee ñëw ci turu son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ndax euh, barki démb ci guddi la ma woo ne ma monsieur le premier ministre ah fan yëpp ñu ngi dégg ay déguerpissement fan yëpp ñu ngi dégg ay nit ñuy jëlee seen place liggéey est-ce que am nga information bi ma ne ko ah man de maa yow ak si xaw a yem li ma ciy dégg mooy li ñuy wax ci presse bi. mu ne ma kon dama bëgg nga leerlu loolu ba ñu xam nu mu demee ci laa woo monsieur le ministre de l'intérieur laaj ko nu mbir mi demee mu xamal ma ni moom jëloon na ab ndogal ab circulaire wax gouverneur yi ak préfet yi ñu lënkaloo ak maire yi ak président conseil départementaux yi pour mën a fexe ba lépp li nga xam ne day bloqué yoon yi ñu dindi ko. ndogalam mooy yoon yi nga xam ne defar nañ ko tabax ko goudronné ko ay oto war cee romb ay nit war cee mën a dox ci trottoir yi bu ko dara gàllankoorati loolu ab orientation bu mu jox la defe naa ci la maire yu bari jëlee ay initiative ne dañuy déguerpir ñoom it waaye nag ñaar dafa am ci mbir mi président la république bi nga ma yónni ma wax ko nit ñi mooy foo dégg coowal occupation ñett ko seq mairie moo ko seq ak population yi nga xam ne ñoo fa am seen i kër dëkk fa ak ndaw yi nga xam ne dañoo bëgg liggéey amuñu fu ñu liggéey ñu ñëw di fa liggéey te ñett ñooñu yëpp nag moom président la république moo leen njaboote ci njabootam la ñu bokk kon suñu ut solution dañu ut solution boo xam ne day ëmb ñëpp moo tax gannaaw bi ma yegsee fii déglu naa ñi représenté population yi mooy habitants yi déglu naa it ñu représenté marchand yi nga xam ne ñooy tablier yi monsieur le maire nag jotul a ñëw amaana am na ay aajo yu ko téye waaye déglu naa monsieur le préfet bi nga xam ne moo àndoon ak moom ñuy def déguerpissement bi la ñu bëgg mooy occupation anarchique état da ci am responsabilité mairie am ci responsabilité lan mooy respons population yi sax léeg-léeg ci responsabilité lan mooy responsabilité population yi mooy ñoom ñooy transformer léeg seen kër def ko ay magasin loué ko loolu yoon may na leen ci droit tant que nag weesuwuñu seen kër lan mooy ci responsabilité mairie yi mooy léeg-léeg wax occupation du domaine public ODP waa mairie ñoo koy joxe te léeg dañ ko joxe ba joxe foo xam ne place publique war ñu ko foon joxe ba pare di ci fayeeku ay taxes municipales kon loolu mooy responsabilité mairie yi responsabilité état bi mooy seetaan gi ñuy seetaan muy yàgg yàgg yàgg nit ñi di occupé ba mu egg fenn bu ñu eggee foofu nag bu ñu solution dañu war a wut solution boo xam ne day ëmb lépp li ma laaj léegi monsieur le préfet mooy est-ce que am na ay mesures d'accompagnement parce que nit fu mu nekk di ci xewlu di ci suturlu boo ko fa jëlee wala boo ko fa bëggee jëlee il faut nga wut mesure d' accompagnement mooy nga propose ko dara au moins loolu nag jotu fee am ñu koy déplorer. man nekkoon naa maire bi ma ñëwee Ziguinchor yéen ñëpp gis ngeen vidéo ya dama dajale commerçant yëpp ne leen li xew marché bu kot du yoon occupation anarchique du yoon te bu soobee yàlla dinañ ko fi jëlee waaye balaa ñu ko fiy jëlee faw man en tant que maire ma wut ay solution moo tax ma lancé ñetti marché yoo xam ne dañ koy réfectionné ak ñaari marché yu bees yoo xam ne ñuy tabax la te benn bi door na fi mu toll nii loolu wareefu état la wareefu municipalité yi la waaye boo andiwul benn mesure d'accompagnement xëy rek ne damay dindi fii nit ñi loolu mooy andi coow li nga xam ne mooy am moo tax nag ñu ne mbir mi il faut ñu ànd seeg yërmande waxuñu nag ni dañuy def permission kenn ku ne def lu ko neex waaye ñu suñ koy régler tam ñu ànd ceeg yërmande état bi dina proposer ay mesures d'accompagnement la ñuy wax nit ñi mooy fu ñu leen mën ci proposé tam ñu ko xeeb parce que ñëpp xajuñu ci benn marché ñëpp xajuñu Colobane ñëpp xajuñu Sandaga suñ leen proposé ay mesures d'accompagnement mooy ay bërëb yoo xam ne dinañ ko libéré def koy bërëb yoo xam ne ku newoon tablier wala ambulant war nga fa mën a dem na nga dem foofu xam ni sa wërsëg mun na la faa fekk en attendant ñuy régler loolu yëpp la ñuy ñaan nit ñi mooy ñu muñalante muy population yi riverains yi muy yi ñu muddalante fii ak rek nekkuñu ñu yoo xam ne day gàllankoor mooy li ñu mënul nangu mooy yoon bu ñu defar ba pare oto war faa romb nit war faa dox nit ñu ñëw bloqué ko trottoir yi mun nañu négocier pour le moment parce que bu ñu toppoon rigueur bi dañuy toj lépp kon magasin yi dañ koy toj ndax ci kaw trottoir bi la nekk yii ñu nekk def nii léeg leen dinañ ko toj kon yërmande moo ñuy permettre ñu régler problème yi ndax lii lépp nag conséquence su échec gu politique publique ñi fa jiitu woon la ndax bu ñu réussiroon politique publique yi muy mbay mi ak càmb gi ak napp gi ak politique industrielle ñi fi nekk ñëpp kon ña nga seen dëkk toog duñ ñëw fii Ndakaaru loolu mooy la vérité tey bi ñu commencé càmbarle les politiques publiques milliards ñu ne def nañ ko ci mbay mi domaine agricole yi ñaar moo ci fonctionnel te te 70 pour cent la fonctionnel yeneen yëpp xaalis bi kenn xamul fu mu dugg ANIDA ferme ANIDA yi kazalika programme xëyu ndaw yi kazalika kon responsabilité état tam daf cee am léegi nag ñii suñu leen teree fi ne nii am na lu ëpp cent cinquante mille jeunes yoo xam ne ci lii la ñuy liggéey boo leen ko teree lan la ñuy def dem jël gaal yi dem tugal wala ñu dem agressé ji loolu du solution moo tax état bi jël responsabilité donte nag lii compétence su mairie yi la ma leeral ko du compétence su état bi man mi ba barki démb xamoon lu ci xew parce que du compétence état bi moo tax état bi jël décision ne moom it dina jël donte mairie yi ñoo am compétence bi. Mhm. waaye mairie yi ci tutelu état la ñu nekk mairie yi démembre laa nañu ci état kon dinañu xoolaat nu ñuy lëkkaloowaat ak mairie yooyu ba fépp fu ñu war a def lu mel noonu état bi jël les devants ñu xool nu ñuy ak commission départementale yi ñu évaluer. situation nit ñi ñi nga xam ne war nañ leen jox ay dédommagement ñu jox leen ko ut ay solution de remplacement balaa ñuy génne kenn fi mu nekk waaye tamit muy lu am solo ci euh, programme bi dañ ko bëgg a doxalee ñu xool euh, diggante riverains yi état bi ak collectivités locales yi lënkaloo bi nu muy demee ba solution bi ñuy ut ni doon solution boo xam ne day day génn ci ay créer emploi waaye du dem ci euh, annule ay emploi loolu mooy message du président de la république mu ne war naa ñëw waxee ko fii fii nag prétexte rek la woon waaye ñu ngi koy waxee fii mu jëm ci ñi nekk Parcelles Assainies jëm ci nekk Rufisque jëm ci nekk feneen ak feneen te di wax tamit ni administration bi monsieur le préfet lañ leen di sant mooy communication ñun entre ñun la biir sénégalais dañuy waxtaan di wax ak nit ñi gis naa liggéey bi nga xam ne sous préfet bu Rufisque mu ngi koy def ñëpp di ko gis mooy dem fekki population yi dem fekki ambulant yi communiquer ak ñoom dem fekk jakartamaan yi communiquer ñoom loolu lu war na diggante ñun ak ñun kon ñoo ngi jéggalu xam naa ni kàddu bi eggul fépp ndax amuñu haut-parleur fii te ñëwuma ci meeting politique dama ñëw fii en tant que premier ministre donc ci liggéeyu état laa nekk xalaat su ma woon ni dinañ fi fekk lii waaye li am solo mooy message bi ñu jàllale ko te xam ni li ñu sant préfet di ko laaj maire bi di ko laaj composante yëpp mooy nañu toogaat ak ñëpp ñu waxtaan ut ay solution de remplacement évaluer les impenses te li tax ma ñëw ànd ak ay Aïda Mbodj nga xam ne moom moo yor DER muy délégation à l'entrepreneuriat rapide mooy kuy ut entrepreneur ñii ñooy entrepreneur yi jël nañu xaalis di ko jox ay nit yoo xam ne parce que ay militants lañu rek mosuñoo liggéey waaye ki nga xam ne jàng na liggéey xam na ni muy liggéey commencé woon na liggéey te kenn jàppale ko kook ko jox financement mu war a mën a dem moo tax dinañ leen recevoir waa DER nañ leen recevoir ay Aïda mbooj na leen recevoir ngeen toog waxtaan ak ñu xool ñu leen di aussi ci ay financement gannaaw solution boobu ñu wax ni dinañ ko def ci ay place yu ngeen mën a toog liggéey ni mu gën a rafete di masaw riverains yi di masaw commerçant yi waaye di masaw mairie bi ak administration bi ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamaaleykum jërëjëf